dikkati naa lu ma saamam na ci réew mi réew mi ko dajee naan man xanaa mooy ñaar candidat yoo xam ne ñoo war a xëccoo fauteuil présidentiel bii nga xam ne président Macky Sall ci la toog réew mi naan man scrutin boo xam ne mosu fee am njiital opposition bi du bokk parti opposition bi njëkk ci réew mi du bokk muy Sonko Karim Meïssa Wade Bassirou Diomaye fay nekk ci prison bokk Habib Sy ak Cheikh Tidiane Dièye bokk kan ñoom it daal di bokk yéen kaay bi naan man ab présidentiel bu nar a bëri débat lañ nar a soobu ci mi Le Quotidien Le Quotidien kon bataayu ñaar ñooy nekk ci géew bi kurpañente yi mën a dalee fu ne moom Karim Meïssa Wade ñu tëyee ko double nationalité fukk ñi nga xam ne dañu ne dañoo caxat-caxatee seen candidature bi daal di tàbbal géej ñoom it daal dina élection yi ci nii mbaa ci naa fas nañ ci yéen a riiguwaat moom parti démocratique sénégalais di attaqué waa conseil constitutionnel tribune yéen a kon xaar foofu rig fa sa baaraam ma ñëw Sud Quotidien naan kon en ñaar fukk ci candidat ñoom la conseil bi ne fëggatu leen te xam ni seen loxo ci a xañ nañ ko parti démocratique sénégalais xañ ko Karim Meïssa Wade waaye keteme daanaka dégg nañ ko ñoom waa conseil bi moom parti démocratique sénégalais njort ne conseil constitutionnel googee dañ leen daal di ger député yi nga xam ne ñoo bokk ci boobule parti di sàkku ubbite commission d'enquête parlementaire Cheikh Tidiane Koulibaly ak Cheikh Ndiaye député parti démocratique sénégalais yi ne dañoo waroon toog ci couloir daal di xañ seen bopp bokk conseil googee ndax link yi nga xam ne am nañ ko ak nguur gi ñoom waa parti démocratique sénégalais naan leen soobu ngeen ci taarix ba fa faw bés bi le jour naan kon en tout cas fi bu ndox tuuroo an bàq rek mambay ñang ci la mandat yéen a kaay naan kon wala rootiwaat bés bi naan kon may ma ma rek Karim Meïssa Wade naan xañ nan ma élection présidentielle waaye ak nu ma mën a participer ca participer yéen a kaay bi naan kon parti démocratique sénégalais ndaw jéeg bu jar dees na ko neexalee nu ne ngir daal di koy am l'observateur naan kon en tout cas ñaar fukk ku naan kon yaayay jooy doo Karim la teg ci digg géew bi ne xattit daal di reen rendi donte nag docteur Sanoxo ma ngay xam le ni fa gaa yi sampoon Karim di waa parti démocratique sénégalais waaja àggagu fa yootu woon nan nguur gi jàpp ne gañe nan ko ba nuppi fekk paa bu njëkk ba sax tegaguñ ko Walf Quotidien naan kon ma ne la Karim sa Wade yaayay jooy ñaari naqar nga am ñàkk nga sa nationalité française yow Karim sa Wade ñu ne déeta waaye la tax nga ñàkk ko bokkoo ca mooy élection présidentielle Le Soleil yéen a kaay kon boole cee Karim nax ñu ba maar day taali ba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre 2023 moom Karim Meïssa Wade la woon ndax fukki fan ak juróom benn ci weeru janvier la ko ñàkk te Karim waat ci conseil constitutionnel bindu yóbbu ne lañ koy laaj ngir mu doon président lépp matale na ko bokk na ci nag am benn nationalité Karim ki yeetuy koo nax ña seet sager na xeembaay turbine yéen a kaay naan maan mooy collectif ñu duppee spolié yi ñan caxat caxatee seen candidature daal di tàbbal géej ña ngay xam le ni boo moy lu ëpp benn million ci ay électeurs ñu dem wote ji moom Bougane Gueye Dany Mimi Touré Aly Ngouille Ndiaye ak ñañu àndal ne dàq élection moom xalaatuñ ko tey xalaatuñ ko ëllëg waaye nag mobilisation mënta ñàkk te bu ñu sàllar ñi koo day sër leen wodd te bu leen woddulee dana métti ci président Macky Sall ki gaayam 24 heures yéen a en tout cas wax ji neexatul Aly Ngouille Ndiaye naan maa organisé woon 2019 élection yi xam naa li xew Bougane Gueye dani naan kon ma ne la bu ñu génnee fichier bu baax bi rek taf-taf mënees naa regle problème bi te fi mu toll nii nag dañoo gis ne justice ci boppam mooy def injustice yor yor yéen i kaay naan kon yi ña ngay njortu ab sàccub élection goo xam ne moom la gars yi président Macky Sall yi nar critique yéen kaay naan kon en tout cas gars yaa ngay tuumaal conseil constitutionnel naan sept sages yi nag fi mu toll nii bu réew mi yëngoo ñooma l' évidence yéen kaay naan kon ay plainte ña ngi koy annoncé waaye tam xam le ni dees na dajaloo génn ci mbedd mi daal di wiiw naqarlu nag taxawaayu sept sages yi waa grand place naan gars yi daal nee ñu defuñu lenn lu dul ay njublan ndax lii coup d' état électronique la forfaiture la te conseil constitutionnel moo ñu ko teg daal di jël clé USB yi caxat caxatee daal di sàcc ay parrain ba ñenn ñi nag ñu daal di leen di recalé Bougane Gueye Dany naan lu toll ci juróom-ñeenti téeméeri junni ci ay électeur boo moytul du ñu bokk ci élection présidentielle bi te ñoom fichier bi nga xam ne moom la ñu yor moom la ñu jël daal di koy séddale ña nga xam ne bëgg nañ ñu bokk ay njub lang ñoo ñu jiite ñu def loo leen ba faf kenn koo xam ne sénégalais yi moom dañoo génn ci moom fexe nañ ba mu jàll docteur Abdourahmane Diouf naan na leer du ñu nangu benn yoon ñuy jox ndam ñaar fukki fan ak juróom ci weeru février koo xam ne daanaka dafa caxat caxatee ba daal am ndam ci kaw gaay naan man lañ te conseil constitutionnel fi mu ne diis na maître Abdoulaye Tine moom songu na CEDEAO kalaame ji leen député libéraux yi fas yéene songu assemblée nationale bugaan ngay dani ne dara boole suñu doole fas yéene kàjji système bi mu ànd ak Amadou Ba abal nu imaam El Hadji Dramé jege ñaale Ousmane Sonko ne fii mbiir yi toll moom njaaxare war naa judd ci ku ne te ku ne it war naa njort ne mën nañ caxat caxatee élection yi la war moom moo di daal di taxawal nag ab comité boo xam ne dana tax waxtaan am ngir élection présidentielle yi bu dee amin mu am ci anam yi le mandat yéen a kaay naan waxtaan ci boppam moom lañ war a def ngir président Macky Sall na génnee ci anam wu rafet waaye bu génnee nii dana ñaaw wala vox populi jox kàddu Aliou Tine naan leen yéen a ngi jor waaye set sage daal la ñu def ci yoon lañ ko jaarale turbine yéen a kaay naan maan mouvement si gi jot na it bu Abdoulaye Dieye lii la xalaat moom directeur général AIBD ne succès démocratique moo am ci réew mi ci lii ndax ci dool yi di félicité Amadou Ba ci candidature am bi ñu dëggal waa Grand jox kàddu Mame Mbaye Niang mu naan ban candidature candidature boo xam ne ak ñaar fukk ci ay élu ñoo ko jagat-jagatee jox ko conseil constitutionnel daal di koy parrainé ci téeméer ak ñaar fukk élu yooyee juróom-ñeen fukk ak ñaar daal ñuy dëddu Amadou Ba ndax la mu dig ma Samba la dig ma Demba mambay ne ñoom ñëpp ba ñu dajee xam ne nag digée gi génn la te na xee mbaay day xeeñ ci mbir yi tax ba juróom-ñeen fukk ak ñaar fi mu ne ci ñi parrainé woon Amadou Ba seen xel a ngi teey ci moom Walf Quotidien naan man Anta Babacar Ngom booba ma ngay xam le ni du candidat ma Samba du candidat ma Demba candidat boppam la bokk ci l'opposition bi produit Boubacar Camara mu ne du plan B kenn moom plan A bu Sénégal la tribune yéen kaay naan man boobu Sénégal njaay mi ngi ci tiis nekk ci naqar goo xam ni maar day taali gannaaw Fatou Fatou Kiné Diouf jaaga yéen a kaay bi naan man mi ngi génn àdduna ca France gannaaw wopp goo xam ni tëral na ko moom Kiné Diouf daal di fekki moom i ñetti weer gannaaw bi gën koo yeex àllarba ji ñuy xaar jot ci koor bi jébbal ko boromam presse culturelle bi di ko sargal ni ki borom këram nam ko sargalee ca way wa nga xam ne dootul fay mukk